ñu dugg dem maître Sow yor naa benn lii nii li yoo xamante ne maître Sow moo ko bind sa loxo numéro jox ma ko dinaa la ko jox maître Sow ya maître Sow ñoom ñëpp ñu wax si après ñu ñoom ñu ne mun ndax mun nañ am sperme même ma ne leen sperme comme ça veut dire quoi yéen est-ce que ay nit kenn et tout ça ñoom ñoom ma wax ne dama retourné waat li nga xamante ne duñ ko def say ni doom déjà loolu noonu c'est am espère nga nag loolu loolu gis nga loolu noonu rek loolu noonu rek luñ luñ ci mën a liggéey am loolu luñ ci mën a liggéey J'ai appelé maître, mais une semaine après, maître m'a appelé pour me dire que le gars, il est là, mon rog, wadi, na fi de parce que dama dogon cabine ak kenn man ko ñëw na mais def dara dafa ñibi wat ma ciow voilà dama mais mu dem si Mamour Diallo même moo ñu jox ko to ñu dem euh, ànd ak benn médecin dem seetawoo ci benn médecin médecin bi def lii tout ça hmm? jëlal li médecin bi dem léegi nag gis nga gis nga loolu noonu ah, ci pet ah, ci man sama digganteek yow ay millions la yoo xam ne yow sa compte lay nekk fii loo xam ne dañ koy téye. parce que déjà déjà. par force. par force. par force. Hmm. maa ngi sa ginnaaw au fait li ma lay wax ne sama papa sax xamu ko nii sama yaay kenn xamu ko si moom. déedéet xam naa. kenn xam na confiance bi nga am papa ci bi bi nga am man c'est-à-dire li nga mën a wax ak man. li nga mën a wax ak man mënoo koo wax ak kenn te dama lay wax confiance la boo xam ne sama diggante ak yow boo xam ne lu ñuy téye la rek denc. voilà parce que nit il faut mu am ku nekk ci wetam dimbali ko comprendre nga bu baax. Hmm. je crois jamais dama lay dimbale jamais maa ngi ak yow ba nga dee yow waxuma la dara dama lay téye. ba ni ñuy dee. wa bien sûr pourquoi pas pourquoi pas yow man maa lay jox Cheikh Ibrahima Niass déggoo lu ma loolu bul sonn. Euh, loolu amul benn problème loolu man maa la koy jox waaye dama bëgg ñun tamit yaa ngi dégg ñu am loo xam ne luy jëriñ ëllëg la ñun ñëpp aw na problème mën bu fekkee ne man man d'accord naa bu fekkee ne dañoo wax ne benn dinaa leen fa bu ñu waxee ne mënuñu defal compte je sais mën nañ ko def sa compte bien sûr bien sûr dañ koy jël dama koy jël. nag day koy jël léegi daal li ma lay wax daal mooy. loolu yépp hmm? fii day sedd am na loo xam ne su fekkee ne doo dof <laughs> da ngay xam lu xew mhm. lépp dégg nga waaw mu ngi noonu te lii xew lépp xam nañ ko waaw léegi nag mooy li ma waxoon sa papa rek yow nit ñi munuñ laa téye ñoom munuñ laa téye di la utiliser ci loo xam ni ay waxu neen la rek comprendre mm-hmm. ba pare nag ñëw bëgg bëgg nag yow duñ la jox sa àq sa àq dañ la ko war a jox parce que xam nañ ne yow sa xel mi xam nañ ne yow xale nga xel mi xóotagul noonu moo tax ñu jox la oto jox la gàdd corps jox la kër gu rafet pour ngay nekk ci kër gi di nekk ci jaam nga xam ne belle vie lañ lay dundaloo waaye belle vie am na lu ko lu ko gën mm-hmm. xam nga lu ma nga am sa yëfu bopp sa këru bopp am sa xaalisu bopp ndax ëllëg lu mënta am yow nga demal sa bopp mm-hmm. te mën nañ ko du dëgg mm-hmm. ah, Ça m'intéresse quand même de partir pour savoir plus. ah ah au cas a jël décision. waaw d'accord léegi man danaa xool oote su ma euh, mhm. xool ko ban jour la ñu mën a recevoir ñu def. gannaaw Saalum la dégg nga. ok. incha allah. parce que ma dem quand même. waaw waaw. nga xam ne mm, ma lii tuuti ci décision yi ma war a parce que il faut que ma jàmbaarloog ñoom franchement. Ah, parce que. parce que ils n'ont pas intérêt que ma wax ils n'ont pas intérêt ma wax. waaw ñoom su ma waxee enragé wu leen seen góor dafay daanu. bu baax. ils n'ont pas intérêt ma wax. waaw loolu man. donc comme c'est ça on va jouer maintenant carte sur table. mais moo tax ma bëgg yow nga ñëw nga toog xam naa ne li ñuy wax nii yëpp ay fen la yaa ngi dégg mais ñoom mhm. bëgguñ nga wax moo tax ñu garder la. te suñ xamee ne da nara wax yaa ngi dégg. nuñ mm. lay def dañ mm-hmm. lay bëgg a liquider. dañ lay bëgg a liquider parce que ñoom xam nañ ne fu nekk ni yow bis boo waxee mm-hmm. tas àddina. Mm-hmm. yaa ngi dégg te damay toog waaw man parce que sa papa dafa ne benn kilifa lañ am gis nga ba muy def conférence dafa ne benn kilifa lañ am ñu ngi koy déglu man nii lay wax. ne ma bul xamante ne sëñ bi yëgu ko loolu léegi nag ñoom Maître El ak ñooñu du mhm. leen aara parce que Maître El Hadj affaire am mu ngi ciy baax. waaw ñëpp ñoom si takk si takk sa affaire mu ngi baax 500 xam na ne moom Maître El xam na ne lim nekk yëpp ay fen la mu ne xaaral léegi may may jéem a encaissé di lekk léegi ñu ngi koy jox ñu ngi koy xaalis. moo tax mu ne léegi nag nday mbili gi nga xam ne nag. coow li yëpp moom la topp lu tax moom duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko jox allo ma ne xam nga xam nga yàlla moom tey su doon wàccee mbugalam fekkee tey tey tey tey la ñuy dem àllaaxira man damay bokk de ah ndax man nekk naa complice ak yow toog xam te noppi xam nga boobaa moom ndax fu nekk nii moom mbugal yàlla moom kenn xamut du jeex. loolu mais mais mais attends, y non c'est-à-dire euh, aji suñu waxee loolu complice mooy lu nit dajaloo te booloo mm-hmm. pexe ko mm. loolu complice la loolu mooy déggoo loolu la ñuy wax loolu araam na wala araamut man muy doomu sëriñ te jàng kañ xam naa ci dara yow da ngaa yaakaar àddina fii lay yem ñun ñii ñëpp yowmal am kenn xamut suñu yàlla jéggalu dëgg mbugal guddul jeex la xoolal imaginer rek bët bu set nga jël sa loxo teg ko ci gaz ci gaz mu lay lakk te gaz boobu doo ci musa teggi sa loxo da ko ci teg te safara si ngay gis ci àddina bi xam nga ñaata lañ ko sëppee ci safara su ci àllaaxira mhm. sëpp nañ ko ci juróom-ñaar téeméer yoon juróom-ñaar téeméer mooy mooy set mm-hmm. déedéet bul tiit arko baax na nag léegi-léegi nga jàng ñu jàngal la ci mbiru yàlla parce que xam nga nit doomu aadama day nekk ci àddina te du jàng du jàng yàlla su jàngee yàlla nag ñu koy wax ci yàlla dana am lu bëri loo xam ne dina ci bàyyi xelam mais nag yàlla borom yërmande la nanta gari lii daa jeex eh. ah? loolu mooy problème hmm. yow mii nday mbili nga xam ne yow yaa yow yaa waral coow lu yëpp ñu xam ne coow lu yëpp yow la te lépp c'est faux lu tax yow duñ la jox ay milliards Ah, dañ la ko war a jox aji. déjà tey dinaa leen tiital parce que je je retourne vers euh, François Hélène Gueye pour mhm. lui dire que de euh, samedi suba incha allah dañu def live. waaw léegi nag man des révélations. yaa ngi dégg waaw mais man dinaa lay xelal ni ngay def pour toog da ngay toog ne leen damaa bëgg kër nañ la tabaxal nañ la jox clé a main yaa ngi dégg. Mhm. soxlawu sax clé à main nañ la defaral terrain. ñu jox la xaalis bi ndax mun nañ la jox terrain bindal la ay këyit ak yëpp fekk ne ñoom en domaine duñ ko duñ ko sottil ci yow comprendre nga lu ma la wax dafay nekk mu nekk foofu man xam na xam na xam na xam na xam naa leen ay fenkat la ñoom ñëpp ñoom laa xam ñoom mhm. ku nekk tëgg naa ak ñu ak yow mhm. ñoom ñëpp xam et pas intérêt ma wax loolu moom xam naa xam naa ko voilà ils n'ont pas intérêt ñoom ñëpp tey mu xoolal attends dinaa photo benn benn liste ci ñi nga xamante ne jot naa leen gis. mu ngi noonu. su ma su ma su su ma la ko waxee sax je vois pas mon croire. ñii de ay doomaraam moo tax ils n'ont pas intérêt parce que dañoo foog ne benn une petite gamine lañ nekkal boo xamante ne xamul dara dof la et tout ça te xamul lépp lu ñuy def xam naa ko dama leen bàyyi ci biir rek. mu ngi noonu nag léegi nag bàyyi ci biir boobu nag te xam ne ñoom ay fen la. léegi nag par force nag mu neex mu naqare dafa jot ci taabal nga ne leen ngi may dégg terrain bi soxlawuma ko dama bëgg ngeen jox ma ma tabax pour sama famille attends attends moi je moi euh, ces ces ces gens là xaw ma ay nitu lan lañ quand